jàppoon ñoom ñi ngi fi ki ñu fi euh, ki leen fi teewal di aadama Diaw nekk jaw faaba président ah. commission. Diaw Fara jaw Fara Diaw Fara. Diaw Fara sama doomu la dëgg. Diaw Fara ma Diaw xool. daa beewee di air bi. <laughs> président commission. commission et relation extérieures c'est ça. gis nga kii mi ngi nii de xam corona bee ko def kaa ne kii na traumatisé na président de la commission commission eh, et relations ngi nii waxuma communication mais euh, bienvenue si plateau bi Adama Diaw nga ñëw nar a waxtaane talaatay der bi nga xamante ne Sénégal yëpp ñu ngi koy célébrer 7 mhm. euh, mars chaque année ok merci maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci euh, dalal bi ngi dalal ci plateau TFM donc comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Adama jaw yore euh, commission communication bu Talaatay Nder ndax ñëpp xam nañ histoire Talaatay Nder nekk na loo xamante ne lu yàgg la ren nag euh, particularité bi mu am mooy dañuy célébrer ñaari téeméeri at yi mooy le bicentenaire mu nekk histoire boo xamante ne booba léegi Sénégal ñëpp ñu ngi koy dégg ñu koy wax que am na suñu ay maam yoo xamante ne ginnaaw biñ leen attaqué naroo leen def ay jaam si lañ taal seen bopp pour euh, wane njàmbaar mu nekk histoire boo xamante ne xëy na ñun si comité de pilotage bi euh, l'origine de l'histoire dafa am benn comité scientifique boo xamante ne moom moo war a saytu loolu mais ñun xëy na si côté aspect organisation bi si la ñuy mën a wax mooy que ne naka la ñuy def ba tey ndeer bi nga xamante ne fa la yëfi xewoon te mu nekk au niveau di Waalo dans le département de Dagana ñu jëmalaat ko ndax ndeer boo fa demee tey amul benn infrastructure boo xam ne dina symboliser tey jëf boobu nga xam ne suñu maam yi jëfoon nañ ko mm. si loolu nag bon ñu ngi si fair appel au ministère de la culture ak suñu ay autorités pour que au moins ndeer ñu def fa benn musée mm. loolu dafa bokk ci ay plaidoyer yoo xam te ne ñu ngi koy def benn bi également je pense que Nder aussi mérite na mu nekk benn euh, lieu touristique ñu mën fa def benn promotion touristique su ko defee ñi nga xamante ne ñi ngi dégg histoire Talaatay Nder te xamuñu ko bu ñu demee foofu ñu leen ñu mën a daal am si ay conditions yoo xamante ne yu jàppandi la yoo xam ne bu ñu demee Nder dinañ mën a revisiter l'histoire mm-hmm. beneen bi si tamit mooy que ne tey bëgg nañ également ñu inscrire Nder dans l'agenda culturel mm-hmm. du Sénégal tey boo demee dans le Sine dans le Saloum boo demee au niveau de Ziguinchor aussi donc kenn ku si nekk rek li nga xamante ne say maam ñu ngi ko defoon yow yaa ngi ko teel sa bopp. Mm. mais loolu dafa manqué tey ci histoire Talaatay Nder bi. donc loolu moo taxoon tey ñu ne woon tey bëggoon nañ tey tey si biir centenaire bi mu nekk loo xamante ne lu am solo la ndax nekkul rek ne Nder lañ koy organiser ndax am na ñeneen ñoo xamante ne même prévoir nañ organiser ku si mel ne le professeur Fatou Sow Sarr mi ngi ko war a organiser au niveau du euh, mise des civilisations noires am na ñu ko war a def à la mairie de dakaar en tout cas mu nekk événement boo xamante ne Sénégal yëpp képp koo xamante ne originaire Ndeer nga originaire Waalo nga tey jël nga bis boobu def ko sa yëfu bopp pour célébrer ko. Mhm. yéen ci journée bi yi nga xamante ne moom ngeen am ci euh, population bi. bon li ñu war a def mooy que ne le jour J mooy le 7 mars ñun ñëpp dinañ dellu Ndeer. dinañ def benn cérémonie autorité yi nga xamante ne ñoom la concerné muy le ministère de la femme en première parce que histoire bi ay jigéen ñoom ñoo ko defoon donc ñu ngi ko fay xaar ñu ngi fay xaar vraiment toutes les autorités ku su mel ne l'honorable député Aïda Mbodj nga xam ne waalo waalo la mu nekk une fierté di waalo ak ñeneen ñoo xam ne ak le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé également qui est un waalo waalo Omar Sarr donc doomu waalo waalo yëpp ba ci mairie Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp ay waalo waalo lañ ñu ngi leen di xaar au niveau di waalo su ko defee ñu célébrer la journée montré waat njàmbaarte yi nga xamante ne suñu maam yi defoon nañ ko ay dinañu am ay discours dinañu am ay également parce que ñun ñaan nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay député donc ñu ñu ñu ñu jàppale ñu si plaidoyer pour que au moins journée bi ñu inscrire si agenda bi donc loolu daal moo nekk. loo xamante ne bëgg nañ véritablement ñu def ko le 7 mars au niveau de Nder. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, am nañ par exemple benn euh, euh, statuette bi ñu érigée mhm. à l'intention des des femmes de Nder boo xamante ne boo duggee foofu xëy na di nga ko gis ci place publique bi wala est-ce que am na loo xamante ne en fait dina mandarga wala firndeel firndeel que ne histoire bi amoon na amoon na Nder non loolu amul mais nag boo demee Dagana am na statue Ndate Yàlla am na au niveau de Dagana mhm. mais Dagana ak Nder booy xool war na mat vingt exactement mat na mat un kilomètre mais boo ñëwee Nder comme ni ma la ko waxee sànq amul dara loo xamante ne symbolise na histoire Talaatay Nder amu fa lu dul guy bi nga xamante ne moo fa nekk moo tax ñun ci comité de pilotage bi moo tax ñu jug taxaw pour que au moins Nder tey bu ñu célébrer bi centenaire bi déwén ci jamono ji ku ñëw ndeer di nga gis beneen xar kanam que kat dinañ xam ne kat au moins Nder am na euh, en tout cas ñi nga xamante ne ñoo defoon histoire bi am na tey benn comité boo xam ne jug na pour que au moins mu am lu koy symboliser mais pour le moment amul dara loo xam ne mi ngi symboliser histoire bi au niveau du village de Nder. bu jógee ci euh, euh, def statuette. ñu dem ci dëkk ba xam ne fii la mbir amoon ak nangam euh, dañuy wax ni histoire itamit euh, euh, dañ koy raconter mais histoire dañ koy bind. les générations futures peut-être ñun sax chance bi ñu am ñun bu ñu moytuwulee les mm-hmm. générations futures mën nañ ko mën nañ ko bañ a am est-ce que yéen a ngi xalaat ci yeneen forme yoo xamante ne war na mën a tax ñu pérenniser non seulement histoire wu Nder mhm. mais ba ku nekk mën ci jànge est-ce que yéen a ngi xalaat ci naka euh, on nous parle de Baudelaire ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne la limite leur histoire pouvait ne pas mhm. mais malgré tout fexe nañu ba ñun ñu xam ci dara est-ce que kon tey war ngeen euh, yéen ngi xalaat ci naka ngeen di def ba xëj na euh, tey Nder comment on en parle au Sénégal mhm. qu'on puisse en parler un peu partout comme ni ma ko waxee sànq mettre nañ en place benn euh, comité scientifique boo xam ne war na def benn colloque professeur Aminata Sarr Diassé donc moom moo jiite euh, comité boobu te gis nañ suñu benn papa muy Amadou Baxaw Diaw donc moom mi ngi si def ay ay ay ay ay ay jéego yu am solo à chaque fois mi ngi bind mi ngi def ay jéego yoo xam ne pour luy retracer histoire u Nder donc je pense que tey bu ñu paree si si si l'activité di 7 mars ñoom bëgg nañ ñu def benn colloque boo xamante ne képp koo xamante ne am nga loo xam ci histoire Nder képp koo xam ne historien nga wala nga nekk nga nekk en tout cas si bépp fànn boo xam ne yaa ngi ciy yëngatu boo xamante ne tey bu ñu ci toogee waxtaan dinañ mën a am benn documentation boo xamante ne dinañ ko mën a teg parce que aussi histoire comme ni nga ko waxee dafa bëri ay ay ay ay version parce que version yi bëri na donc euh, ñi ngi naan lii la leeral donc tey colloque boobu je pense que buñ ko organiser dinañu permettre tey ñu am benn document boo xam ne ñëpp dinañ ci tombé d' accord que ne histoire bi kat nii la demee woon ba suñu ay sët ak suñu ay kii waaw loolu daal loolu lañ si merci beaucoup Adama Diaw d'être passé sur ce plateau en tout cas rendez-vous bi jël nañ ko 7 mars fële ca mhm. ngir euh, sargal jigéen yi nga xamante ne defoon nañ fa acte de bravoure a de cela 200 euh, ans merci beaucoup merci beaucoup à